di ma seetaan kan moo ci mën a wax ne fàtte na premier amour am maanaam sa premier amour kan moo ci mën a wax ne fàtte na ko xam nga kenn fàttewul sa premier amour voilà donc kaay leen ñu waxtaan jàpp leen ne bis ni ki tey Sonko mooy premier amour ci xolu jeunesse yi Sonko du ku ñuy fàtte du ku ñuy effacé pour ñi ma gis ñuy def ay vidéo di diaboliser di tëb di dal naa xale yi tourné nañ paas bi fàtte nañ Sonko da ngeen di kàcc da ngeen di paccal forox loolu amul ñooñu koy def mosuñoo bëgg Sonko mosuñoo ànd ak Sonko Sonko ki ko xes ba def fii ki xes ba gëm projet bi kooku gisuma lu mën a tax mu effacer Sonko ci xolam amul loolu ay kàcc la ay paccal forox la man na gàcce day topp borom day bàyyi borom topp ma xam nga des fois ma gis yoo xam ne c'est un peu ridicule quand nangu leen li yàlla dogal te xam ne kii jamono jiñ toll nii ngelaw liy upp sonko lay upp jeunesse bi sonko la ñu wax nit ñu baax ñi sonko la ñu bëgg ñi gëm Afrique nekk ay vrai patriote sonko moo fi ne